Assalamu alaikum. Good morning, Gambia. Good afternoon to other parts of the world, and good evening to other parts of the world. Welcome to LSTV One. This is the breakfast show. My name is Ami Fadera, and as we always do, it's yet another beautiful Wednesday morning, and we are back here in the studio um, to talk about interesting topics on the newspaper. And as we always do, coming. su ko defee rek ñu nuyu képp ki nga xamante ne nag euh, yaa ñu dénk say gëdd ci jamono ji rek euh, ñu jaajëfal leen bu baax a baax su ko defee rek ñu wax leen ne dal leen ak jàmm ci breakfast show bi euh, fii ci LSTV wan ana ci man mi Ami Fadera ak nga xamante ne nag mooy Mariama Ba comme ni ñu koy faral di def saa su nekk. altine àllarba ak ajuma tey nag di àllarba fukk ak juróom benn fan ci weeru maac ah, doon ah, li nga xamante ni nag mooy bés bi nga xamante dellusiwaat nañ fii fii ci ah, programme bii di breakfast so but before wasting much time I will just hand over the mic to my colleague Mariama and let her greet the audience and we get into this program Mariama good morning. Good morning, Amin. Good morning to the viewers of LS TV1. Anywhere we are signaling, this is LS tv with Ami Fadera and I Mariama Ba our cup of coffee newspaper our cameraman waa yëpp si biir LSTV wala breakfast show mu di ndékki li ñu leen di nuyu bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel LSTV one rawatina programme bi nii di breakfast show nga xam ne dañ ko fi faral di am altine àllarba ak li nga xam ne moo di ajuma te nag ah, ñu teewaat ak beneen style beneen facette ak nu ñu fesaloon naa fi mbaxana tey dama fesalaat mbaxana nga fesalaat waaw waaw ah, ngir rek ah, breakfast show bi waaye di mm-hmm. jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji ak fu waay mën ci nekk rek ñu ngi laa nuyu di la ziyaare waaye laata may def dara mm-hmm. damay nuyo di ziyaare suma benn broda wuyoo ci turu Aliou Thiam mu ngi dëkk ba Bakoteh tey dama xëy mhm. suba teel ndeysaan mu kool ma bi ma kool fekk sax boobu maa ngi lazim mhm. mënuma koo jël afta bi ma koo euh, koolaatee si la ma xamal ne ndeysaan jabar ji dafa am doom bu góor oh, doom bu góor ma koy ñaanal yàlla mu nekk ku baax yàlla dundu te barke dundu te barke mhm. yaar bi mu nekk moom tamit ku baax ndeysaan bi ma ko xamee si xëy na dafa nekk taalibe ma doon taalibe rek mu nekk taalibe ma doon taalibe mu nekk tamit taalibe ki nga xamante ne moo di Cheikh Abdou Wilane di ñaanal yàlla yokk leeram ah, waaye tamit ñu bokk Mawlana Cheikh Ibrahim rek bokk Maam Ibra Fall borom mhm. mu nekk ku baax bëgg ma boppam rek te yàlla tax xëy suba mhm. teel koor ma wax ma ko ma ne ko yàlla na dund te ñu mhm. teg si yeneen doom ku mel ni Mariama nga xam ne day felfelaale sànne ko <laughs> ku mel ni Ami nga xamante ne dafa ah, <laughs> yiw yaru macha allah ku mel ni Ousmane Diallo suñ maan mi nga xam ne moom dafa noppi rek te yaru ku si mel ni Ousmane Camara nga xam ne ëppal na waaye liggéeykat la eh, yàlla na yàlla may njaboot yu mel noonu ak ñoo xamante ne itam ñu mel ni président Baro ah, yëpp bëgg nañ ko président yi yëpp soxla nañ leen waaw di la ñaanal rek Aliou doom ji dundate barke di la wax ne ne gis naa wax dëgg fa neex yàlla fonk bi ma fonk te yàlla bu yàlla tas sa yaakaar si suma diggante ak amiin amin yaa rabbi di ko ñaanal rek ah, yenn ah, doom ji dundute barke doon jullit mu toog ba jëriñ ñi nga xamante ne ñooy waajuram yi waaye tamit jëriñ ah, li nga xamante mooy doomi aadama surtout ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi loolu rek moo am solo su ko defee rek ñu xuus ak programme bi comme niñ koy faral di def saa yu nekk su ko defee yi nga xamante ne mooy on the Wednesday on the 16th of March we're going to read the front page of the Foreign newspaper and the Standard newspaper And me beginning with the Fourier newspaper, the front page, um, the first story is 19 women to contest April parliamentary elections. Mm -hmm. IEC rejects five aspiring candidates. President Barrow pledges $5 million in support um, for internally displaced uh, persons in Foni. Mm -hmm. And this one is um, um, GPU president urges journalists to do research, provide reliable content national auditor auditors say uh, medical items worth over $24 million is procured without approval. And Gambia registered 10 new COVID-19 cases. Wow, forgot na COVID day, COVID mo fi belegi. Um, anyway, so going to you them onto the question of the day on the foreign issue. Um, what is the mandate of the IEC on nomination? Uh, that is the question on the a Fourier newspaper, what is the mandate of the IEC on nomination? Uh, Mariama, those are the top stories on the front page of the Fourier newspaper, and then maybe you can just help us with the standard newspaper and we get into this oh, program. Yeah, you dem ak standard newspaper We xaaral ma gën koo xëcc gën koo xool <laughs> dama guddee lekk cere mbuum so ba léegi nelaw boobu mu ngi jàpp sama bopp bi xam nga xam nga xam nga last week ridoon nga fi comment benen programme tey <laughs> nag fexeel nga ridoon bu ñu ridoon standard newspaper bu last week gis ma ne haram ma jëkko gën ko xool ba ma fi def yoo baax na baax mhm. na daal dem dama dama dama guddee lekk cere ak mbuum so nelaw boobu mu ma japp ba léegi rek ak ah ñu ah, the stories from standard newspaper we have new US ambassador arrives mhm. ah, KMC inaugurates new office complex Audit report said government spent millions of dollars on COVID food aid without following dual process. Mm Catholic group urges Senegal to end anti-rebel operation. IPC criticized use of state resources for campaign. yeah, um, yeah, that will be our topic today. Um, is it right? It's a question actually. Is it right to use state resources for a campaign? as, as we can see on the standard newspaper, the ICP, which is the Inter-Party Committee, mm -hmm. um, um, criticizes use of state resources for campaign uh, loolu mooy suñu tapiku tey bi uh, waaye nag uh, balaa ñuy dem si loolu nañ xala laal du tuuti lu jëm ci wàllum seeraayu bagage yi fii ci biir Katim doon suñu na good morning to you all good morning to you Katim how are you I hope you're fine um, I hope um, you uh, wake up um, um peacefully and then yeah ñu ñaan rek uh, ñu end of jàmm que ko defee rek uh, ñu xuus ak programme bi comme ni ñu koy defee saa yu nekk kon ma ko waxee woon rek uh, first of all nañ dem seeti li nga xamante ne nag mooy seeraay bagage yi fii ci vidéo bi ndaxte Mariama génn génn génnoon ngeen génnoon ngeen tëdu yaakaar naa génnoon nga dem dem dem nemmeekul ñu seray bagage yi ndax tey yaakaar naa ne sax topic bi ñu indi ak yooyu dina nekk dina euh, la laalante boo xoolee ba xool mm-hmm. ni ma naan comme ni nga ko waxee rek euh, lii jëm si wàllum réew mi boo ko naree jël di ko campagne yi mm. te ñi ñaa ngi xiif mbir yaa ngi métti comme man ni ma koy waxee dama bëgg a lekk moo tax affaire dund bi rek laay lijjanti euh, moo tax itamit moo tax nga génnoon moo tax ma dem lijjanti di ko doxantu doxantu dem seeti suñu benn koo xamante ne dem nañ ci euh, sa bitiga mën nañ ne syndicat la ndax si mhm. syndicat la nekk mhm. dañuy jaay li nga xam ne moo di wholesale daanaka dañ koy jaay dañ dee jaay retail sa waaye wholesale bi uppa mhm. ay saaku kenn nañuy jaay ak yooyu noonu waaye da ngay gis ne boo demee si syndicat bitigam bi sax dafa yolom wanal na la ragal naa jënd sax ay bagage yu seer te du ci génnaat mhm. mu nekk loo xamante ne lu métti la loo xamante ne lu métti la te ñu ñi war nañ ko bàyyi xel mhm. ah, kon laataa ñuy def dara rek xam nga ñu ne tunga ne du teew ñuy nataal mhm. te yaakaar naa ne waaw loo am nag muy firnde jarul ngay dem di wuti ji leneen wala di ci wax wax bu sori andoon naa ak suma caméraman bu ñaaw bi Ousmane Diallo ñu muy ci ci Thie Villa Thie Villa waaw boo Thie Villa waaw mom nag tur boobu da koo saf da koo neex soo rek boo ne ko Thie Villa mu jaxasal ñu suñ caméra bi de Thie Villa mu am nga soo ko Villa dafay dugg si Thie dafa wax doy waar Thie mm-hmm. Villa takkil jabar mu ne ma jabar dafa mm-hmm. teel damay mm-hmm. wax ne rek lima ma advice bugg a ñeen ñëpp ñuy bàyyi xel suñ caméraman bi wax leen ko mu takka jabar mu dee jëm mag <laughs> kon ñu dem Thie Villa Ousmane nee ñu nga takka <laughs> jabar Thie Villa ñu dem ak li nga xamante ne ni moom lañ leen dem jëli li si syndicat bi rek ya, ak buñ ñëwee ñu gën see xuus indi si ay waxtaan. alaykum mo fi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax yeen ñi nga xamne faral di bàyyi xel LS TV One ah, wala rawatina ñi nga xamne ne di breakfast show bi nga xamantene ni dañ koy faral di ko am always nak dañuy dab seen banex mo tax tay ñu ñew ta dañ bëgg waxtane lu am solo mu jëm ci li nga xamantene ni di walum ser ndugg bi wala dundu bi ta ñu nemmeeku ne legi tay weeru ko dina ñëw xam naa boobu it dinañ ci def ay jéego waaye exeegut ah, comme ñu daal di ah, gis ngeen rek fi ñu taxaw ni gis ngeen ne fi boutique la boutique bi nga xamantene fay jaay lu jëpp jëm ci wàllum mën nga wone ndugula sax ndax fay jaay ceeb gis ngeen ko nele euh, fay jaay euh, jaay diwliñ jaay soble euh, jaay nga xamantene ni modi dundu di te ñi ngi dañ koy faral di soxla ñu fekk fi nak ben soxna mom muy daadi jënd li nga xamne manam mën sew soble ak yoyu ñu laaj ko lan la gisé seeraayu ndugg bi ak jafé jafé yi nga xamne am nañ ko laata ñuy dem di wax ak ki nga xamne modi borom bitig bi soxna ci nuyu nañ la. na la no jóob awa audio pa euh, ñu gis la ñu fekk la fi yaangi ñew pour di jënd ci lan lan nga fi normali pour di ñew di jënd ci nang fi ñew pour nduga ndugay sew wala soble rek nga fi jënd ci wala lan nga fi jënd si sama jëna soble ak diwlin soble ak diwlin naka nga gisee li nga xamne modi yu diwlin bi mu jëkke ba mu daan jar pot 12 dollars ci jekki jekki mu ñew ba ci pot 25 dalasi ah ñun dañ sani carte pour bagage yi mëna wañi waye legi sani carte be pare bagages yi ñëwee yokka rek man moom dama jommi sax gis nga depuis kañ maa ngi toog fi suma xaalis bi jeex na lu ma war a jënd aw ma ko moo ma toogal fi sax. léegi yéen da ngeen bëgg a wax ne da ngeen sànni nguur gi carte pour mu wàññi leen li nga xam ne moo di bagages yi. waaw te ba léegi gis ngeen waaw gisuñ dara. léegi yow lan ngay mën a wax ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel rawatina nguur gi ci mbir lu yokk rawatina li nga xam ne moo di weeru koor soreetut léegi tey mu ñëw léegi weeru koor bi suy ñëw time boobu la bagaas yi di yokka sax yow pot sukkur tatti dalas la waaye fii moom ten dalas la tane na waaye si bitiki fo nga yéene tatti dalas soo ko yéenu doo ko am mu melni ba legi gis ngeen kaddu yu mu yëkëti wax ko mu melni ñëppay joytu li nga xamne modi bi nekk ci marché bi uh, waye ba legi rek dañuy wax ak ki nga xamantene ni modi di borom uh, boutique bi mom mi nga xamantene ni moy ndayu mbili gi comme nima ko dee waxee mom moy ndayu mbili gi nekk ci biir uh, señ bi no tudda man samba jaaw la samba jaaw nga nekk fi nekk fi ci boutique bi di jaay mën nañu wax comme li nga xamantene mom nga jaay fi waaw dama jaay fi soble diwlin malo sukar ñebbe wonjo pompiter ay jimbo yi ni juice lu bori dal dama ko day parce que sandigal sandigal def day am lu bori motax comme mun nga wax ni fi sandigal la dal waaw sandigal la dal waaw waaw legi euh, mun nga ñoo wax ci saaku sukur bi ci fan la tollu jamono bi saaku sukur bi da ñu koy jaay ñun wa sandigal ñu koy jaay 2000 2000 ben 9 1950 dal waaw legi euh, ci way marché bi jarul lolu ñi nga xamne ñokoy jëndat diko jaay non ñi nga xamante ne den ñëw pour eh, bugg a jaayaat ñun eh, dañu jaay after ñu ñu jaay ko one thousand nine hundred eh, fifty dallasi su boobaa ñun mun neen fa am fifty dallasi ñun ñun parce que su naré am fo 150 wala 200 rek yoy non am nga da fay disturb askan bi motana ñun even pot sukar ak 10 dollars len ko day jaay bi dige ndaw yi daal ñoom thirteen dollars fourteen dollars 15 fifteen dalasi sax dafa am sa ñu ko day jaay pour ngir lan da fa ser motax waaw dund bi da fa ser torop waaw euh, diwlin bi tamit euh, di same thing la galong bi ñaata la day jaay diwlin bi mo gëna a eh, gambia fi daanaka parce que diwlin bi mu ngi gëné 2100 te bu njëkk ba ñaata la daan bu njëkk ba sax sukkur ñaata la daan jar saako sukkur. sukkur boo bu njëkk ba ay thousand six yooyu wala thousand five sax. sukkur du ko doon jar waaye dafay jékki-jékki rek eeg be daanaka one thousand eight euh, bi galon bi tam bu njëkk ba ñaata la daan jar. waaw euh, diwlin time boobu noonu fan yàlla ñu ngi ko doon jaay one thousand seven hundred fifty dalasi. loolu lañ ko doon jaayee jënd nañ ko sax one thousand six fifty waaye gars yi dañ ko ñoom tamit gaa yi yokku ko nag yokku ko si doole nag ba dama dem rek benn bés ma ne ko de client ñëw naa de waaye diwlin la bugga mu ne ma ne diwlin na dafa seer two thousand one hundred leen la ko dee jaay ma ne ko njëkk ba mu ngi daan jar ay thousand something ay thousand six fifty léegi si two si legi pot pot liñ daan jart bu mag 12 dalasi legi 12 dalasi lañ ko doon jaay ñun fi 10 dalasi sax dañ ko doon jaay fi waye so jande 2000 do mën jaay 10 dalasi fo nga jande eh, fo nga jaay ñun eh, ñene ñu ngoy jaay 25 waye ñun fi ni wañi len dalasi bi ñu ngoy jaay 24 dalasi ngir nan pour gaay mën a jande fi mm-hmm. waaw suru non so euh, mu mariama gis nga li nga xamante ne nag moom la ñu wax jaajëfal bu baax a baax ci génn bi nga xamante ne génn nga ko demal ñu foofu noonu ci syndicat bi waxtaanal ñu ak ki nga xamante ne mooy borom bi waaye tamit ak kenn ci ñi nga xamante ne ay client lañ kenn ci nga ne doon jënd dégg nañ li nga xamante ne moom la ñu wax ci te gis nañ ne saa yu nekk wéeru koor suy ñëw def day ni ñoom yëpp a day dégg jékki-jékki yokku bagage yi seeraay seeraay bagage yi da nga xamante ne ñi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ñooy baadoole dañ cee a baax ndaxte ñi nga xamante ne ñoom seen loxo xam naa jot seen gannaaw ñoom dañoo dem jënd lu bëri teg waaye ñun ñi nga xamante ne suñu loxo jotul suñu gannaaw comme ni ñu ko doon waxee we feed from hand to uh, so we depend on hand from hand to dee tax ñun def dee andi jafe-jafe yi bu baax a baax soo gis nañu li nga xamante moom la ñu wax Mariama la ci am pour sànni ay kàddu balaa ñu dem si topic bi xam nga dafa dafa daw yaram nga dégg uh, jigéen. ñu mhm. dem di jënd mu ne la. te ndax dëgg la bi ñu ñëwee balaa ñoo stade dara gis nañ ko mu ngi toog mhm. mu ne suma toogaay bi li ma toog dama jaaxle ndax ñëw naa jënd naa suma xaalis bi jeex na te li may jënd matut mhm. xam nga tey jii su fekkente ne tey da nga ñëw euh, jënda euh, de fekk soble seer pompiteer seer te léegi tamit ñu ngi mënatuñoo ñëw dëkk ci lekk mbaxal mënuñoo dëkk ci lekk ceebu kecca mënuñoo dëkk ci lekk lekk boo xamante bi Euh, xëy na amut amut amut amut seen bëgg-bëgg du ci am. Mhm. léegi doo mën a wax ne nga ne na sama biir fees rek waaye caf ko moom du ma ko du ma ko léegi nit ñi loolu la ñuy dundee sax mhm. da ngay lekk rek sa biir fees waaye caf-caf lu neex neex moom. Mhm. amatul ndax nee naa omelette bi ñuy jaay si boutique bi sax léegi da nga koy da ngay da nga koy jënd sax pour yow na nga na nga lifin rek na nga na nga na nga sa biir fees waaye du caf-caf mooy tax. ndax lañ la say toftal du la motal dara. waaw ndax ah, dama ne boo demee léegi am na jéeg ju bari bu ñu demee marché lii na ñuy demee bu ñu saamee ah, soble saam 25 saam 10 saam 5 saam nii dañuy kelemati xam nga kelemati. kelemati kelemati kelemati lem. jamaanu jamaanu lem. jamkatu baaba ulay mu taj mbaxana bu taj siifoo saafa jëf sa baay aji màkka da ngay noos noos. bu yab sa aji màkka si la bokk. sa baay aji màkka da ngay noos noos bu yab. aali poto lamp alipi bi bi léegi mm. si 25 bi la nekkoon waaye ñoom ñooy poussé loxo bi def si àll rajax bi si centaine bi parce que mm. xam nañ ne mënuñ ko dafa métti boo demee si marché bi gis euh, jaaykat jaaykat yi si boppam sax mm. xam nañ ne dëgg-dëgg dunda bi métti na ba nga xam ne ñii ñi jëndatuñ parce que boo demee tey jii nga gàddu benn Honda bu njëkk ba fifty dollars si sax boo ko xëyeen suba dem marché tubaab ngay nekka waaye léegi hundred dollars si two hundred sax boo ko yóbboo marché da dangay da ngay mel ni yow indiwuloo dara jën seer na lu jum seen na boo demee si syndicat yi nga xam ne ñooy jaay ay soble ki pompiteer moom mm-hmm. foofu la raay ba téye nii moom ñooñu moom boo demee pour nga jënd kilo pompiteer moo tax ma ne kër yu bëri soosatu soble bu seer pépp subu rek diwliñ bi pépp subu rek imagine xaaf pati diwliñ boo amee sa ganaar ray ko mm. soble sañ say def seer na nga pepe suub ko rek yëngal naan moo fi sa pepe ko rek yëngal naan <laughs> léegi kenn mën na la kenn soosatut mm. ndax bu njëkk ba da ngay gis nit ku soos togg soos grébin bu bari mhm. diwliñ koo a diwliñ ba foo laal muy niin benn cin da nga ko daan danka muy niin ba niin waaye léegi benn cin mel ni ñànkatan léegi benn cin boo ko da ngay da ngay rusa ko parce que soo ko dànkee du taxaloo ndax ñàkk diwliñ for twenty a bi métti léegi boo demee si euh, borom euh, ki nga xam ne moom moo nekk tamit kii bi mm-hmm. euh, jaaykat bi ki nga xamante ne moom moo ko dégg mu ne foofu syndicat la mm-hmm. ñoom sax tane nañ ñoom tane nañ waaye soo demee si buñ koy jaayee si si biti bi ñoom ñu ngi jaayee ten mm-hmm. nee na waaye fiñ koy jëlee moo seer ndax jii stock bi mu ngi génnee li moo génnee comme exemple mun nga wax ne bu génnee thousand eight saaku si ko moom tam bu ñëwee ak fu mu ko jëlee ak kii daf koy calculer jaayee ko thousand nine fifty yaa ngi dégg moom mhm. boo xoolee ak bu calculé tey nee na fifty dalasi la si am si li mu wax mhm. nee na fifty dalasi la si am mhm. euh, waaye tamit man dama ne man de ma am profit ten dalasi moo ma gënal ma am profit hundred dalasi ta euh, euh, wax dëgg fa neex yàlla ñi koy jënd duñ ci am lu leen neex nit ki booy jënd dara dafay fekk ne man dama ne jaay kat da nga war a xool ci li ngay jaay waaye nguur gi ami ku wax lii wax na leen nguur gi daf ñu war a jàppale man dama ne nguur gi am na yenn yu bëri man dama ne tukki tukki dafa bari billaahi tukki tukki yi dafa bari every day oto wiiw wiiw wiiw wiiw ñu ne réew maa ngay tukki ngay dem tukki bu demee ñëw newspaper yaa ngay binda ah, réew bi may na ñu five million ten million twenty lii an xaalis boobu te ba li si coono bi ñu doon dund ak jafe-jafe ba léegi moom la ñu dund nañ waxante dëgg coono bi jafe-jafe bi moom la ñu bind dund mm-hmm. ba léegi mm-hmm. fu foo laal mu ngi métti bu njëkk ba da def ne foo bës muy soos mhm. nga capp lekk. waaw léegi nag moom foo bës kongse la lay jox. ah doy na waa te te de te de ba am on the 15th of March moo nekkoon uh, World Consumer Day uh, mu di bés bi nga xamante ne ñi nga xamante ñooy jëfoo um, commodities si consumer si ñoo ko moomoon uh, pour ñu xool naka la def ba jàppale leen te gis nañ ne Gambia am nañ kuréel boo xamante moo saytu wàllum consumer mu di Gambia Consumer Protection Compodium waaye ñoom lan lañ nekk di def lan mañ ah damay lan lañ nekk di def pour xeexal ñi nga xamante ne ñooy consommé yi. <laughs> laaj naa la ko. laaj naa la ko because démb gis nañ ñu ngi ñu ngi commemorate li nga xamante ne mooy mooy bés bi uh, ci gis naa ko si QTV News uh, Gambia um, protect am. Um, uh, dañ leen waroon laaj li ñuy def dañ leen waroon laaj lan mooy seen liggéey si. ñu ngi doon ñu ngi ko doon def si seen news bi te seen team bi mu ni Fair Digital um, Finance Fair Digital Finance I guess mu nekk seen team bi. Euh, bu DC euh, World Consumer Protection euh, Day so ñun ñun suñ kuréel bi nga xamante ne moo amee wàllum consumer fii nan lañ nekkee di def pour jàppale ñi nga xamante ñooy consumer yi mm. nan lañ nekkee di def naka lañ nekkee di pressuriser nguur pour nguur gi mu xool naka la moo wàccee ay price yi naka la ñoo def di wàññi li nga xamante ne mooy seeraay bagage yi balaa may ko nekk lu ma gis nañ ki nga xamante ne mooy um, send up um, comment mune high price of commodities in the gambia is a global problem the only solution to the, this problem we have to go back to the land okay back to the land don't back to the land promotion okay mune if the government say they can reduce the price okay the price of commodities in the gambia they are fooling people government should do a massive investment in agriculture that's the only solution exactly eat what you grow grow what you eat. yeah eat what you grow loolu rek lañ mën a def. waaye eat what you grow grow what you eat. su fekkee taxawuloo si du dem. naka la ñoo demee it it what you grow grow what you eat te nekkuñ di jàppale ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo nekk si ba ñoo went back to the land gis nañ ñuy wax ne ñuy wax ne am ci ci saison li nga xamante ne mooy mooy mooy gerte. Mm-hmm. baykat yi nekk si ob bi ñoo ñoo gën a sonn kuy sonn dañ dee bay seen bay ba pare mm-hmm. pour ñu jënd ko sax li mu waree duñ ko am. ñoo ñoo gëna a teeti soona ob bee gën a soona ñoo nekk ci ci ci bay bi dëgga mhm. kon nguur gi limu wara lijeenti dafa bari nguur gi ci bu ko li wara lijeenti limu wara lijeenti mo bari xam nga jigen bi nee dañoo wotal dañoo wotal baro dañ baro président bi sa boo koy wax ñi ngi dem ñi foog ne président Sénégal nga wax président feneen Gambia fi la wax mu ne dañ wotal baro dañ wotal baro pour price ci wajé ko wajé wóotal bu bare waaye dañ ko yokku price yi gëna yokku so dafa melni ñi ñi seen yaakaar bu ñu amone dafa tass xam nga ñun xam nga àdduna la moo gën a métti mm. nga def dara ba pare toog naan su ma yëgoon su ma yëgoon parce que ñu bëri tey ñu naan suñu yëgoon ñàkk a pexe tey moo tax xëy na tey ñu ñu ñu fexe jëlaat suñu carte wala jël ñenn ñi jël seeni ay carte jox ko mm-hmm. xam nga àdduna boo si nekkee rawatina Gambia ñun Gambia réyu mm-hmm. man Gambia waroon nañoo jooy lu nekk ba mu tës duna bu seer mm-hmm. dëgg na nag fépp la métti affaire bi moom foo bés mu ngi cuuc àdduna bi yëpp àdduna bi yëpp gis waaye nag Gambia a even even mm. a global problem waaye waaye si raw mm. ñun bi ni mu yokkoo daf si dafa garaaw dafa garaaw trop mburu dem si ten dalasi mel ni mel ni mburu dem si ten dalasi paquet mburu bi da koo mën non non da a bàyyi rek non paquet biscuit bi dañoo jël seven léegi mu ngi si ten dalasi pot sucre ta ten dalasi fan lañ jëm potu diwlin 25 imagine potu diwlin. bu mag motul lii. half pot bi lu ndaw. de kër bu mag kër bu mag normally kër bu mag ma am na lu ma doon defar dem si ngoon ma ne ma diwlin bu fàttali Gambie dafa wécc mu mu dellu ma ma des na 250. <laughs> ñaw ñaw <laughs> ma jox ko five dara ok dama dama <laughs> ko jënd def. half pot diwlin half pot ma ne kër yu mag yi ñoo gën a sonn. kër yu mag yi nga xamante ne nii laa la wax dañ war dee jënd bu njëkk ba potu diwlin bi mu daan jar tendal si potu diwlin bu mag tendal bu ndaw five mm. time boobu nga xamante dañ dee jënd five pot te du leen dee doy léegi ñi nga xam dalasi ñooñu fan la ñuy jëm fan lañ jëm duñ lekkati diwlin rek moo nekk duñ lekkati diwlin rek kër goo gis ñaari cin doma daa doma daa doma daa doma daa nag gisuma coes soose bu bañ doma daa la ngay gis duurang kër goo ah, ba pare ba pare ba pare euh, gerte bi euh, gerte bi tamit mu ngi mu ngi mu ngi fii soo nax la ñor naa ne gerte nag moo fi yomb gerte est yombul maj boo seetee boo ko limee mën nga seet kos 15 days naa ne di ko taal di di lekk te dina des tuuti billaay ñu ngi dinañ gis gambien si di jël loo xamante ne musuñ koo lekk dinañ ko jël di ko dañ ko lekk ñu def ci ceeb si rek kanoon gis rek kanoon kanoon wax naa xiisuma ñu loolu mu ne mu ne du ma ko lekk ngóor lii du ma ko lekk du ma ko lekk ngóor lii du ma ko lekk bàyyam jënd ko saako dugg laa teg prices are skyrocketing each and every day you're right Sadio Touré bàyyam bàyyam rocketing every day every day mu ngay gën a yokku. yëpp a yokku soo ñu ngay wax ne nguur gi mu. déggoo ma ah, maa ngi lay expliqué loo story de. góor mm. luñ ne séeréer la. Mm. luñ wax ne lekk mu ne du ko lekk. Mm. luñ ne lekk mu ne suur du mu ne du ko lekk. moom réew na rek góor daal ceebu jën rek na diw gi di siir rek. bàyyam ba nga ko buggee yar saako dugulaa la jënd. saako lan dugulaa dugulaa. Eh, bu dugulaa dafa neex nag dugulaa dafa neex de il faut que ñu delluwaat. waaye dara boo koy nekk dara boo koy nekk bés bu yàlla sax man dugg laa bés bu yàlla sàkk doyut ma ndekkee dugg laa añee dugg laa reeree dugg laa uyul uyul uyul kii am tayib tayib mu ne kan. sister ya, Mariama because we don't produce nothing in the Gambia eh, Gambia lu ñoo produce mu si jaaxal parce que suñu maalaw suñu maalaw maalaw nga xamante moom lañu moom lañu béy béykat yi koo béy rek rek ñoom si seen bopp sax du leen suuf soo naka la ñoo béy nga xamante ne am na maalaw bu daan génn boo ko jëndee boo ko marché bi dañ ko dee utal soose dañ ko dee ooyee waaye loolu loolu noonu du mënut a saaf ñooñu. ñooñu loolu mënut a saaf waaye nit ñoo loolu nag loolu nag mooy suñu problème xam nga lan la ñun neen ñoo bëggante wut. even suñu bëggee nekk di def si ah, it what you grow grow what you eat you prefer that that American rice nga xamante soo ko soo ko raxas nga gis li lu dee gën a si kaw. boobu lañ préféré bi nga xamante ne gis nga xam fi lañ ko béyee. balaa nga xam ne bëggante wut. Mm. nga dem jënd ji camion nga indi ko Gambia dañ koo leb si benn fan nar la ko fay si five years <laughs> I'm telling you. They go left si benn fan nar koo five years. Mm. billahi wallahi tallahi fi nga xam ne ne dëgg-dëgg nga am fii dañ soxor soxor moo tax mun development daf development day so and then coming back to our main topic today um, is it right to use uh, state resources for campaign uh, loolu lañ loolu a nekk topic tey bi parce que gis nañ standard newspaper gis nañ ñi nga xamante inter-party committee ICP ñu ngi joytu wala sax di naxarlu anam bi nga xamante ne ci leen political party doon jëfoo seen alali li nga xamante ne mooy réew mi di ko di ko def si seen campagne yi loolu loo xamante ne nit yi ñoo ko war a jëfandikoo loolu nga war a dundalee réew mi loolu nga war a defaree ay tali nga jël loolu di ko dugal ci ay campagne te nit yaa di jooy li nga xamante ne mooy yoon nit yaa ngi fi di jooy ndox nit yaa ngi fi di jooy di jooy di jooy nit di jooy di jooy lu nekk ñu koo jooy yow nga jël alal boobu noonu eh, di ko di ko dugal ci i nga xamante ne mooy campagne parce que suñu ridee ci dip dip dip euh, into story gis nañu ko ci campagne mm-hmm. sax jarut làq-làqal bi jarut ko mm. man dama ne Gambie dañ dañ weesu fu ñoo làq-làqal dañoo maslaxa làq-làqal ba loolu moo tax léegi mënatuñoo dem fenn nañ wax li nga xam ne moo fi nekk mm-hmm. ñi jiite ñoo koy use ñoo koy use parce que ñu ngi ko bind ñoom ñoo am access pour koppar boobu mm-hmm. ñoo koy use mais yooyu ñoom ñoo am access pour xaalis boobu because dañ leen dee jox xaalis pour si seen gox mm-hmm. pour seen gox ñoom ñu jël xaalis boobu campagne di ko pasar pasare génnee seen ay aso bi mita fifty waaw mita fifty cibut mita fifty dafa yomba ah. mita fifty cib na dafa cib loolu laa laa waxale ma ne dañuy génne ay aso bi mm. boo xam ne dafa waroon jar mita two hundred mm. ñoom ñoo ko jas de xaalisu réew mi nañ ko jëndee mm-hmm. def ko mita fifty yomba yi sañse gone yi sañse ñu print seen ay tiisaat def seen ay flyer def lu leen saf lu leen neex mm. dawal ay oto di campagne ci dëkk bi te xaalisu dëkk bi nañ koo campagne wallaay te loolu moo fi nekka sàmba dem bi so man dama ne Gambia li ami billahi Gambia man dafa bari de man Gambia ko we have a long way to go we have a long way to go okay mune um, the use to use state resources for campaign is another form of corruption it's the, it's, it's the biggest form of corruption because sa <laughs> rawul loolu loolu nga jël alal bi nga xamante ne euh, nambu yi nga xamante ne nit yi di fay nit xëy su bés bu nekk di dem di liggéey su weer su dee ñu xaalis bi di jël ko dugal ko ci nguur nguur liggéeyal nañ ko nguur jël loolu di ko pasar pasare ci seen i ay campagne loolu noonu doon na li nga xamante ne ñu ngi overtake biggest point lu ma ko waxee ñu ngi def <laughs> ñu ngi overtake fu two out of out of one hundred countries ay seventy eight countries sax ñu raw can you imagine this small Gambia 78 countries and daw suñu wee si wàllum corruption can you imagine loolu loolu doon doon la te loolu dafa tuuti dafa tuuti instant time bi ñu nekk déggoo li ma la wax mm-hmm. dañu ngi overtake bi mm-hmm. overtake maa la wax dinañ dem second wala taat déedéet bi xam nga la la ñun askan wi ñun ñoo soona amee mm-hmm. mënuñoo dëkk si suba ngoon guddeeg su ñu alal suñu alal mu du alal boo xam ne danga nga koo teg suñu loxo di ñu ko fay mm-hmm. waaye loo xam ne moom nga ñu war a jàppalee ba lu bëri mun a wàññeeku mm-hmm. moom nga jël di ko pasar pasaree tey yi dama ne su fekkente ne euh, ki nga xamante ne nii moo di trade ministre dafa naa yaakaar naa moom waroon naa jël ay jéego mm-hmm. ba lépp lu fiy dugg si mu wàññi tax bi bu ko wàññee si seen kaw ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ah, nga xam ne commercial business lañ amee nga xam ne ñoo ñoo yore business yu mag yi fii ñoom ñoo fiy dugal marchandise yi dinañ mën a xam ne ne ah tey jii kat saako bu nekk buñ ci tegee interest comme exemple saako sukur ñu ne saako sukur bu nekk ah, ñu ne two thousand exemple thousand five la moo jar mm-hmm. ñoom buñ ko indee buñ koy jaay bitig yu mag yi thousand five lañ koy jaayee mm-hmm. waaye tey jii ñoom fu ñu ko jëndee thousand three la léegi yow thousand five boobu yow da nga ko bëgg a jaayee thousand three pour ku koy jëndaat mun koo jëndee thousand five mun koo jaayee thousand six mhm. yow nga ñëw ñu dem bu ci ci port bi mu war a génn si ñu tegal la fa li nga xamante ne moo di tax wala nga fay tax boo xamante ne bii saako bu nekk tegal nga si five hundred dollars boo war a fay dafa mel ni saako bu nekk li two thousand la moom génnee nga ñëw nga jaayaat ñi ngi ko jaay tamit interest bi ñu ci tegu dañ ko ñëw ah xaalis xaalis bi ngaa jël di ko campagne waaye not nga dem jël ko dugal ko foofu foofu noonu su ko defee ñu ñu koo dugal si mun a wàññi man man mënuma gis ne ne bés bu yàlla sàkka njiitu réew mu ngay tukki mm-hmm. bis bu yàlla sàkk ñun ñoo may xaalis Gambie ñu ngi koo dégg ana koppar boobu tey la ñu gën a sonn tey la ñu gën a ah. dellu gannaaw Gambie léegi-léegi dangaa dangaa daje di nit kama moom gi <gasps> xonq la dangaa foog ne dafa pawda pawda wudde wóor ba punde punde <laughs> baala <laughs> jàppa du di because dañ dee confuse yaa ngi amee njaboot pour moo jógee na pour na dëkk bi réew mi tali am na ñaata talee fi réew mi mu ngi pënna yow boo demee si man am na ñoo xam da ngay tas ak ñoom marché dañoo waxtu mm-hmm. billaay wallaay te la am na ñoom da ngay tas ak ñoom marché nga foog ne ne wér dañ am dañ xaw a confuse because ñu ngi lañ bàyyi kër mm-hmm. suma doom yi ma bàyyi kër tey ruy laa leen tegal ñu ndékki lan nañ war a añee tey mbaxal bu weex tal lan nañ war a reeree si mbaxal boobu laay tibb joxal leen ñu reer maalo seet na sukur seet na te ba léegi waxtu bu nekk ñu ngi gis nit ñaa ngay jubule di sol ay tiisaat sol ay asobi toppa ay politicien bu jël di ko print ay tiisaat di ko jël ah. di jox nit xale yu ndaw a sax kenn ku xale tiisaat balaa ngeen a jël loolu print ay tiisaat mhm. bu fi kenn doo am dara kenn du taxaw président kenn du fi waxoon mayo bu fi nekk duñ la fayati doo am account doo am dara kenn du fi nekk mayo waaye people because seen poos moo ñu sonal ñun Gambien si mhm. ñoom dañoo jiital seen poos xan nga lu gën a bon ci àdduna nga jiital nit ku yor toon dara mhm. nañ waxante dëgg bitim réew foofu lañ ñu rawee képp kuy toog président da ngay fekk nga am sa ay compagnie am sa ay oto bopp am sa account bu diis mhm. am lépp boo see yow xaalisu réew mi soxla soxlawuloo soxlawuloo ko am nga ba pare waaye tey ji su fekkente ne yaa ngi mel ni Mariama nga jël Ami Fadala boo xamante ne mu ngi jóge dëkk ci benn nguunaam ci benn nguunaam jël ko dugal ko dugal ko <laughs> mu jiitu rek am wërsëg bi topp ko ko wërsëg bi topp ko te ami boo demee ubbi kaw account am dala sa amu ko dala sa amu ko léegi-léegi 3500 moo fa nekk 3000 <laughs> bëri ci genre de façon de boobu sax dañ ko dañ ko bëgg a suturaal rek moo tax ñu pétrolage ko. ñu ko waaw mu doon campagne ko def mu toog nekk si nguur gi lu moo njëkk a xalaat mooy. mooy naka la moo feesale am exactly jël ay doomam yóbbu leen bitim réew. waaw tabax ay famille am balaa muy liggéey Gambia te loolu ba balaa muy dintu fekk loolu weesu na weesu na ba pare loolu moo tax kon dafa mel ni interest moo tax nit ngi dem di toog foofu loolu moo tax bu campagne jotee yor loo xaalis boo campagne xaalis foog nga jël xaalisu nguur gi nga campagne ko obviously bi toog maire bi mm-hmm. kansiloo bi député bi ñoom ñëpp koo siy toog te yoruloo sa oto yoruloo sa kër yoruloo dara amuloo benn teranga ñu bugg la faa fay moo tax bi ma déggee ay ticca nañ ma baalal ay ticca <laughs> wala ay journaliste yoo xamante ne leer na yow seekul sax dawaluloo ko amuloo ko nga ne yow da nga bëgg a def taxawal askan wi fële weer bu dee sa salaire salaire nga fay dem uti waaye nekkul askan wi ñoo la fa moo tax loolu moo tax na campagne léegi tey beneen bii di ñëwaat amuloo beneen kenn suloo yaa ngay ñëw bu meeyoo yaa ngay ñëw soo lu ñëw rek mooy alal bi nga xamante moom la ñëw jël di ko printé ay fii saat di ko jël di dajale suñu mbokk yi suñu suñu yaay ak suñu paañ xam nga ñoom xumbaay beeg mumbaay bi moo leen dee yóbbu su ko defee nag ñu dem foofu noonu Euh, di di rek ko ñu jël ay ay ay ay moto yëpp na bi nga war nañ ko ci leneen li nga dina jàppale askan wi ci leneen li nga dina li nga bagage comme li nga lañ ko nekk di wax euh, gis suñu fan sare comment mu ne <laughs> we have a system that encourages and promotes impunity in government and private organization which is highly characterized by self self-centeredness, corruption, economic inequality, and in, ineptitude. ok eh, su ko defee Mariama dafa mel ni war mën a ubbi line si léegi. Ya, war nañoo mën a ubbi line si pour képp ki nga xamante ne bëgg nga bokk ci programme bi nga call ci number bi nga xamante mu ngeen nekk di gis ci seen screen bi it's on WhatsApp ngeen a call on WhatsApp pour ngeen bokk ci li nga xamante ne mooy programme bi Ousmane da nga xiipal la may nah, gis ñaari <laughs> <laughs> def def naa ko de. mu ko may gis ñaari ami. def def naa ko de xiif rek bu fekkee si yaay di taxa baxal ataaya rek ne ko may ma si may ma si may xam nga loolu du naan. Mm. di garaaw garaaw boobu xiif naa ma naan ataaya. di xool télé bi di gis three in one. three in one. <laughs> understand ataaya boobu di waaye man tamit ma nag. su ma ma naan la <laughs> xaw ma nag la waaye man daal di gis ñaari ami. three moo tax yow de bon tamit Ousmane jamono ji naan café bi naan café bi mën naa dem ba ngeen egg si boppam bi de non non si Ousmane bàyyi ko xel mu ngi def tout ami ami so dafa mel ni Ousmane ah Ousmane yow tam bu ma rustoo nag jàllo nga sant café ba jàllo nga sant te xam nga am na séeréer yoo xam ne ak joola yi hmm. tamit ñun dañoo xool daal nu ñu mën a daanelee rek buñ def mm. yoo xamante ne nii dañu <laughs> dañuy si xasee te ami mii dafa laal séeréer te fu ne nii am naa ne yii ñaawalaate la koy jëlaale ah waar mm. man daal dama sëgg daal daal di gis waaw nañ def professeur ne gis nga tey ni ma pesalee nii su ma pesalee waat su ma mbaxana bi mm. soo yow tam fexeer rek affaire yi nekk si bu pesal caméra bi nekk si lii dañu tàllal ba caarka njaay rek waa bañ a def benn jàdd jàdd <laughs> faye bon de maan su ko defee ñu demaat ci ñu continuer ak li bi euh, Mariama gis nañ kii mu ne euh, su fekkee bëgg euh, ñu wàññi jafe-jafe ñoo ñu delluwaat di laan waaye est-ce que ndawi tey ndawi réewu Gambie tey delluwaat ku mel ni Ousmane na fas yéene naa ba mbolet daal di amee ngoos dem béy xale bu jigéen bu fi génnewul si xelam bi dama war a sol kos toog si office hmm. Gambia dafa gën a. dafa gën a dellu gannaaw de. because ñëpp ne ni ah ami damaa delluwaat ci élection bii rek. Mm. Euh, lifin bii parlementaire élection bii. Mm. ñaata ndaw yoo xamante ne nii waroon nañoo dem jëlaat seeni ay tool. def ko bay ko non non duggaat si agriculture. Mm-hmm. commercial agriculture loolu rek moo ñu mën a jàppale. yaa ngi dégg mm-hmm. dugg si commercial agriculture bi pour ñoom affaire lu mën a suqandeku nekkul ne sax danga fay nekk at least man dama boo amee. am nga sa xaalis dajale nga ba am lu toll si exemple fifty to sixty thousand mhm. yaa ngi amee laan boo xam ne mu ngi seen dëkk ko ni nga ko waxee mboolem mu ngi amee laan ku ko moom ah suma maam ko fi bàyyi woon daanaka maa ko moom wala suma suma moom la suma ndono la mhm. waaye nag nga jël ko defar ko ba mu baax start fa di fa bay dem na ba mu jigi nga jël ay ndaw ñu la fay bayal du carotte bi batanse ne supame ñaam bi euh, pompiteer yëpp soble bi yëpp nga def ko ay pàkk boo xam ne bu paree da nga koy jël saaku ko eg ko dugal ko ci biir réew mi jaayaat ko foofu loolu business la te billaay bu yàggee ba yàgg si booru tool ba di nga ko tabax sa office waaw bu nit ñi solee ko nga sol ko tabax sa mansion tabax sa mansion waaye la mooy nekk suñu problème mooy always tamit dañ dee jël suñu boppa di ko di ko di ko nasaxal mm-hmm. ndaw ndaw bu nekk si biir réew mm-hmm. bul xeeb bul xeeb te nañu dañu war a bàyyi def suñu mindset bi ne ñëpp war a toog office nekkul ne ñepp wara mëna tok ci office nekk mais ñëpp war a nga né man suma sañon instant yi ma ngi windeelu ci togu waaw waaw mbaa ci bi di taka moy windeelu di baaje léegi-léegi sa am ku dugg ak confort mu ko indi ma café waaw waaw xala ma bobu fuuy rek ya ñaari ci la kool interview ngay so bangu ngay so ay so di so di ci mun waaye ñu def bu wax la ñu yàlla bindee yalla la ko yàlla tool ñu topp leen nag parce que da ngay gis ko xamantene euh Oh, um, mu ngi mu ngi mu ngi is um, a prominent person nga boo ko interview nga koo call mu la tuisantoon waaw te dama am mitin fale waaw tey dama am naagaarwaale naagaarwaale because loo mooy seen jikko bëgguma ko naa dinaa ko wax fii loo mooy seen problème te image yow journaliste yi ñu laa oo pour nga ñëw waxal askan wi lan lan nga bëgg a lan nga amal askan wi te yow nanguloo ñëw génn si wax waxal askan wi yow yow yow façon loolu est-ce que exact tànn ban middle house ngay dem tànnatu ban journaliste ngay waxal loolu yëpp dogal li nga xamante ne dafay daf ñuy discouragé ñu ñi nga xamante ne daf ko xibaar yi te soo soo leen xoolee ñu itam na bi seef ko <laughs> soo defee status ñu xool yoo xam dañoo xool ba xam dag leen a gaaruwaale foofu Gambia billaay li ñu laag dafa bari <laughs> Gambia li ñu laag dafa bari xam naa ne nee nañ nee nañ dina waar nga baal nga baalu àq ba ne bu ñu ñëwoon nga baalu àq nguur gi war nga dem fobee rek géeju Banjul ba mu wow mm. jaral na ma ma jël ay mor te dem di salaay di fobee rek waaye doo baalu nguur lu ma ko baaloo ñu nguur defalu ma dara defalu ma dara si éducation si jàng bi si mbay mi difficulté euh, la da pare mayaam help bi noonu moo gën a tekki tembare surtout jigéen ñi nga xam dañuy umba war a am doom dañ di sonn obbi nag obbi pour ñu am help center bu taxaw amuñ ko ay lifin nañoo am gis nga comme luuma yi nu mu di amee yee côté côté jokaadu yi boo ay luuma hôpital lañ am boo xam ne exemple dëkk nii comme exemple nga ne num kebbe àllarba ba àllarba la la seen centre bi boo xam ne mm-hmm. àllarba mm-hmm. ñëw indaale ay am na ñoo xam ne dañ fay taxaw duñ feebar sax waaye dañuy jël prestamo li denc ko pour ñu mënantee naan ah dëkk yu si benn côté muñ a génn mais yooyu yooyu yëpp loolu moo fa nekk dañ dee am place health center da nga koy gis foofu noonu yu ndaw ñu ne fii àllarba ba àllarba. loolu loolu bu nekkee àllarba benn saal benn saal la ñu tabax. saal léegi-léegi noos bu day senn. te léegi-léegi noos bu mel ni Mariama nañ fa dee indi noos boo xamante ni boo nekk sama bopp bàyyi métti ñu def ñu so dañ di am difficultés. pour mhm. ñu ëmbee sax pour ñu am pour ñu dem dimbali. Mhm. government bi balaa mu jël xaalis di ko dugal si ay campagne man dama ne Gambie ñoo war a ké képp ku ñuy tegati nguur nguur sa loxo wala place di la jiite muy mayo di councilor di député. ba pare na nga nekk ku am xaalis. ñu xam ne ne am nga oto am nga kër yaa ngi amee ay jabar di la toppatoo waaye su fekkee sa jabar xartum lay yendoo bu xëy soo buy dem xew vax lay sol ñu laa teg si place sa jabar dina sol jës neer rek. waaw waaw jës neer du pire pire rek wata proof moo fi nekk. moo tax proof dañ ko wax xaw ma. waaw waaw eh. am na waaw gis naa ko kay. moo tax proof bu sax mu def nii. waaw mu sar sar loolu kan la ñëw sol loolu di nga na sol nag dama nay mënu ma ko jënd aw ma ko jëndee amit ak fu mi toll léegi aw ma xaalis aw ma aw a xaalis ma ko jëndee dooga may wax ma ne hmm. iPhone iPhone tattin ba ñu ñaangee laal fattin ne génn na hmm. simple techno sax aw ma ko simple techno amul loo ñu ñoo def li la li li techno li techno lan la iPhone wax nga dëgg iPhone la <laughs> su ko defee maanaam ñu gën a xuus ñu ngi yaa ngi fi di ma caaxaanloo rek waaye waaye lu ñu nekkee di very serious is very non non very serious lu serious boo koy wax il faut nga nga dugal si li nga xam ne mooy réalité ba nga Gambie la moo ñu yàq buñ ne guur rek dañuy dañuy a tudd Adama Barrow Adama Barrow mooy suñu gis nañ ko fii gis nañ xoolee si lu ñu nekk di waxtaanee ah. newspaper bi gis nañ Eh, ci ci affaire si eh, comme marine force paragraphe bi ci interparty committee bi uh-huh. eh, ehm, ñu ne interparty committee ICP a group established to foster dialogue between political parties and promote peaceful elections in the Gambia has condemned the abuse of state resources in election campaigns. The EU Election Observation Mission recently released a report which alleged campaign malpractices during the recent presidential election campaign, including abuse of state resources by President Barrow's MPP. so xam nga ne um, yeneen political parties yi tuddul leen fi yeneen um, um, independent parties tuddul leen fi ñu fi tudda président Barroso NPP so lépp lu ñuy wax moom lañ koo teg parce que moom moo jiitu foofu noonu ndax moom moo ko def wala ñu koo toppoo ko def loolu doon li nga xamante ne lañ loolu moom moo ko war a moom moo ko war a lijjanti moom moom moom moo si war a taxaw def uh, kéemtalaay kàttanam mhm. pour xam lan moo nekk di xew moo nekk di xew su fekkente ne eh, secrétaire daka la bi moo dee luubal mu lijjanti ko. Uh-huh. yaa ngi dégg. Uh-huh. bu dee ministre yi ñooy luubal mu lijjanti ko. nit ki suñu la dénkee réew tamit dangay jox nit ñi seen àq bi war ami tollootuñ fu ñuy maslaxaayee Gambie dafa métti ñun ñëpp ñoo ko yëg ñun ñëpp dañ xiif uh-huh. dañ waxante dëgg dañ xiif dañ xiif de parce que kenn lekkatul lekk bu neex nit ki léegi dangay lekk rek ngir naa survive ba dunda am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee suba xàpp seen mburu yi ndox nañ ciy teg këriñ bu ñu tàngalee tii sa problème lay nekk si ñoom imaginal gaz bu time boobu noonu one fifty one seventy five la daan jël gaz bu ndaw léegi mu ngi ci two fifty jàpp two seventy five gaz bu ndaw nga xam ne gaz moo jël yee moo jël because ñun dañ ko moom nañ dee use <laughs> keroog suma yaay keroog suma yaay dama dama jëndi ji gaz ma génn bis bi ma dellu si waat ne ko nee nañ tout 75 la la mu ne ma jaral na ma jënd saako këriñ di boyal bis bu nekk saako këriñ ah ñun de saako këriñ lañ nekk moom lañ xam déedéet waaye xam nga su fekkente ne comme yow yaa ngi lifin because bu njëkk ba mm. gaz moo gënoon a yomb dafa yomboon waaw

we have to come together collectively and develop our country, not the government alone. Not the government alone, but the government is the lead in the, in, in, in when it comes to development. development yeah. And more more what a G2 nit lead by example. Develop so by, moo tax lépp lu ñëw development moom la ñoo njëkk a wax waaye tamit nekkul ne moom kay dama ko war a government mu am li ay mayor ay councilor ay ay ay ay ay ay ñëpp si lañ def parce que pour ñu jàppale ko nga ne government mm-hmm. bàyyiwuloo ñoo ñoo bokk bi yëpp ñoom ñëpp lañ def te bi il faut moom mooy jiitu mu defar xam mm-hmm. su indee ay bërëbu fajokaay yu baax ñu ngi dinañ faju bu indee tey jii agriculture bi mu jàppale leen mu dem ñu ngi dinañ di mm-hmm. am indi ay institution yoo xamante ne dina jàppale ndaw ñu jàppale gis na ci mi sax war na ñëw weesu fu ñooy béyee nawet kese war nañu andi ay initiative yi nga xamante ne even noor even noor nga xamante ne taw amul war nañu am ay initiative yi nga xamante ne dañoo bëgg di béy noor ak nawet su boobaa ñu a jàppale suñu bopp ba mu laajte suñu nawet nawet nawet nawet nawet nawet kese nawet su amutee Gambie duñu béy luñu dee def mooy dem ci garden bi te garden bi béy benn benn nit ñoo ko def Mariama ak Ami xalaat ñoo dem ci garden bi dem kees si wéy na ñoo dem roose so loolu doon li nga xamante ne il faut il faut il faut criticise nguur di si wax su ko defee ñu mun see jël ay jéego Euh, comme ni ko waxee rek you have every right to criticize government if they are doing well obviously te nit ki nga xamante ni yaa dem ba fal ko sànni ko sa kàttan mu jiite la su nekkul di def li nga xamante moom la leen problème yi Gambie dangay dégg nga xamante moom lañ digoon askan wi soo foog askan wi ci seen di génn si di nguur bu mu leen waxoon te bu mu leen bu ñu doon campagne waaye ñun loolu loolu loolu mooy si nomination biñu mhm. demee woon bi mhm. ñu dem benn media house moo fa nekkoon mhm. media house boo xamante ne bi leer nañu nañ ko wax dëgg bi rek dañ wax dëgg bi media house boo xamante ne buñ buñ tiimalee nit seen maay non non buñ tiimalee nit seen maay mu xamaleen because questions yi ñu dee ak wax yi ñu dee wax yu dépassé nit ñi mhm. moo tax sax léegi nit ñi dañ leen commencé di leen tegee ko de so ñooñu rek ñoo fa nekkoon ñu génn wax ne waaw parti bi ñi mënuñoo ñëw léegi tri nañ koo def ñun ñu ñëw ñooñu iñaan lañ ñoo wax information bi ñu ne tekk noppi tam dem toog ñu ñun tam ñu jug ne dañoo pare bi ko suma na yow ñoo fa nekkoon ñun ñu jug volontaire bi ko ñun moom ñu ngi nii rek bari wax ñooy umba ka um, um, um bari seytaane umu um, kalaj ak faatu kalaj <laughs> ñu jug ne dinay wax mbir mi il faut ñu wax because toogu yaa tegu ñoom ñu ngi si kaw ñu ngi dékki bidongu ndox sax bidongu ndox yu mag dañ jëpp ko dañ ko doon jaay dañ koy jaay obvious bu ñu ba xam ne ñun ñu ngi naan naan ndax man jaamante naa ko ne leen ndox laa bëgg si la wax ne dem leen si dem jëla ay leer na ma ne ko fa teg nit yi naan ko ñu jël ko di jaay fan la ñu xale bi ñu di wax yéen journaliste yi naan eh yéen ko wax de yéen ko wala wala ma loolu dama seen jàng ba la dañu nekk di toog di ragal ak génn si di wax li nga xamante ne mooy bi kon ñun fan la ñoo dem ma kañ la nguur di génn si jàppani euh, comme ku si mel nañ dem si yàlla si ñu tudd Deda Aidara la mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ay vingt journaliste nañ nit ñi dañ leen dañ leen xel lépp lu xew because lépp lu xewoon dañ koy taxaw ñu wax gis nga ni pandéri pandéri na ko yàlla yërëm mhm. gis nga nit ki da ngay dëgëral sa bopp mhm. dëggal sa bopp dara boo si nekkee bul ci bul ko cof mhm. bul ko cepp ceppal dank ko ba mu dëggee gis nga boo toogee ci boolu ceeb bariwul ni ngay dankee pour sa biir bi fees nga jug fexeel yow itam nga def noonu booy liggéey waaye lan moo ñu san ñun Gambien dañuy gis duñu wax wala di ko noppi wala di ko ñu gis di rek la wax wala di ko su ma waxee lu ñoo wax naka lañ may xoolee journaliste nga taxaw di laaj nit question ñu ne waro eh, waroo ko laaj yow booy laaj bul wax personnel yi waxal nit ñi non non non yow si askan bi nga bokk mm-hmm. si nit ñi nga bokk si nit ñi nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee nu ma ko dee waxee bu jëndee mburu ten dalasi da nga jënd mburu ten dalasi man affaire mburu bi daf ma métti trop. ok gis naa naxari na ma. boo jëndee mburu ten dalasi la mburu ak soos léegi tati dalasi la muy jar pour mburu ak soos tati dalasi la moo jar. fu ne nii léegi da nga koo wàññi jënd xaaf. Mm. fifteen dalasi. Mm. te xaaf bi suma maas gii boo ko lekkee ba pare boo ci tegu ñaar ñaari potu ndox yu diis. Mm-hmm. doo mën a dem ak moom. Mm-hmm. Gambia yombut. yombut neexut na government bi bàyyi di jël suñu xaalis. di ko campagne suñu koppar ak yu ñu luñ dee yalwaan nañ waxante dëgg nguur yëpp ay géwél lañ dañ dee woyaan dañ dee woyaan dañ dee woyaan <laughs> dañ dee di si réew yi di woyaan réew yi am alal di di di woyaan foofu noonu fii mu ngi nii ñu bindee ko président Baro <laughs> plégi five million support moom la def mu ngay ñaan five boo xamante ne daf ko bugga mm. five million dalasi xam nga boo ne million dañu fa ne nit ñi five million dalasi support lam nekk di ñaan soo léegi ñun dafa ni moom ñu ngee ñaan pour ñu indi léegi bu ñu indee ngir yàlla war a suuli comme te mënuñ koo def gooto gooto mënuñ ñu koo séddale ku nekk ten ten wala five five fifty am ci ay njàppandal ci yeneen réew yi bëri na bëri bi nga xamante ne exact gambien bu nekk sax war nañ ko mën a jox benn million ne jëla nga tabax kër wala nga jëla si biir réew bi dafa bëri bëri yaama naa def ay si ngaama <laughs> benn la benn million million at least even kër ba kër nekk nekkoon lu mu tudd tudd beneen bi yow nañu ko mën a nag Mariama ak lu fi dugg ci <laughs> na la de serious yow may la si fii a dugal sax bi sax ngir suñ ko fa dugalee xaaju million boobu xëy na dina wàññi price comme te a def kenn ku bi du ma ko laal du ma ko laal ngay gis ci affaire audit audit audit audit gis nañ fi ay koppar yu bari yi nga xamante dugal si na fi ci réew mi te xamuñ kenn xamut fu ñu leen dugal Mariam kenn xamut fu ñu leen dugal gis nañ fi national audit am um, says medical items worth over 24 million procured without approval mm. doon nañ ay ay ay ay ay njuuj yi nga xamante ne ñu ngi fii ci biir réew mi yoo xamante ne soo koy wax sax doo xam fan ngay commencé ak ngay fan ngay fan ngay ah, si boppam office bi nga gis auto yi ni ñu ràññee sa yaram dafa daw auto bu gëna rafet sa morom nga ne bi la ñu ne ñem peesi yi di tak ci bii da ko seen yow da ko seen séen ngi doon najj nga seen ko mu leer la ne mu leer na li sama xaalis ma ko mu wallaahi laa leer na ne sama ñaka mu ngi si lii am na yenn bërëb yoo xamante man dama ne dañ wara a xoolaat seen liggéey ci biir réewum Gambia yow weer ba weer ben yoon nga ci génne ñu déggalé ngeen wax lii depuis time Covid bii nii depuis loolu depuis kañ la waxuñ ko askan wi bàyyi ba léegi ñu commencé di ko mm-hmm. sulliwaat di ko naan government bi waaw topp si process process yooyu bu ko toppee bu ko topp ñun loolu si xëy lekk xaalis lekk nañ ko jox nañ lañ ñu jox mooy ku si nekk xaaji saaku ceeb xaaji saaku sukur am na ñu ko am am na ñu ko am ñoo xamante ne ko am am dara te ko man am na suma benn mël fa boo xam ne solatuma ko ci rang bi <laughs> dañ ko xàmmee wala maa tegu si rag bi laa ko dee dañ ko xàmmee dama ko wëlbatiku sol ko ñaari fan yoo xam ne moom rek laay lëma soo dem ba léegi dama koy rusu sola parce que damay ñi ràññee ma xam ne ko kii buggee dara bés ñaari fan maa fa keroog bi ma amee mm. xaaju saaku ceeb nañ ñu jox xaaju saaku sukur mm. ah am na ñoo xam ne mujj gi dañ doon wax ne sa naan juróomi doom juróom benn doom te amuñ loolu sax waaye bugg bugg nañ ñeneen jox bu jox saaku ah, ceeb boo xamante ne xaaju saaku bu ñu ko joxee bi ñu ko tegee bëggu bëgguñ ko woon a sax lekk dañ ko bëggoon a wécc parce que ceeb bi nekk na ceeb bu ñu ngi sonn suukar bi da suukar te eh bàyyi du saf du saf mu ma jaaxal man ko man ko sax ngi sooma suukar diabétique sa ay doon parce que man suukar boobu noonu mën ngaa def fukki kuddu ci benn kaas bu saf déedéet waaye xam nga ne moom man dama ne man dama ne dafa nekkul ndox waaye bu nekkoon ne comme liquide la comme buy fi du ma wax nag si moom sax de mm. waaye loolu su xewee moom war na gëstu alkaali bañ joxoon ceeb yeeg diwlin wala ki nga ne mooy di kantulo diwlin wala député bi nga xam moom lañ ko joxoon mhm. pour mu jox ko waa gu xam ndax waa xam mod la nañ mod la nañ ndax ñëpp am nañ ndax ñëpp am nañ nga xamante ne ba tey ba tey amuñ am na nga xamante ne loolu en fait ñëwoon na ba amaat seconde rang am na nga xamante dëgg euh, Sénégal suñu ay dëkkandoo lañ mhm. even su fekkee ñoom ñoo ñu ëpp ñoom ñoo jóg waaye lu mu dee dee dee fonk nañ seeni ay doom mhm. ba jox nañ leen man du ma noonu because damay wax dëgg bi man Gambien la su ma boo Gambien la su ma yaay def fesi si yaa ngi dégg su ma yaay yaay Sénégalais la ID bi mu ko yóbboo si ambassade bi fii dañ ko koolaat mu dem ñu jox ko xaalis wala ma loolu fooguloo sa balaa ñoo di ko jënd ay saako. dañ ko jox xaalis xaalis ñu ko jox nekkul xaalis ko war a jox dëgër ko jox mu ñëw soo kon daf laa wane ne comme te moom comme te moom mi nekk Gambie lañ mun a yónnee est-ce que ñoom suñu ay doomi réew yi nekk si yeneen réew am nañ ndax am nañ ñun ñu nekk fi sax pour ñu am problème déggoo li ma la suma mën fa boobu duma ko salati ndax rangu ceeb. soo ko suba. du ma ko moso boobu du ma ko sal parce que su ma ko salee ma ko salee nit ñi dinañ ma ràññee bu baax bi ko ah, kii si jënd maal si jënd maal léegi maal am na paa yoo xamante ne nii laalo dañ fa tegoon di xëccoo xeer de bi ko waaw xeer dañ ñuy ràññee bi ko daf laa wane la coono bi nga xam ne ñu ko doon dund métti dëgg dëgg covid bi Gambie dëgg dëgg dañ ko yëg mm-hmm. dañ soono ma gisaat ñu ne am nañ fukki kees fukk ak fukk ay nit yi nga li nga xamante ne mooy coronavirus man foog fàtte woon coronavirus. fukk kees yooyu nañ ko gars yi wéetoo ñoom nañ ko wéetoo fukk kees yooyu nañ ko wéetoo ñoom léeg-léeg corona moom wax dëgg fa ne yàlla jamono ji moom tolo fa waxu corona ku hmm. ne nii la weeru koor gaa ñu ñëw <laughs> ci sonn seet na hmm. ah nii ah xanaa ñu ngi jàpp ko si di ndogoo spaghetti spaghetti spaghetti sax est-ce que spaghetti seer na Mariama di fii fii lépp a seer. lépp a seer xam nga spaghetti est-ce que spaghetti ñaar lay jar ñaari nen te loolu pour femme yi mënuñu koo ndogoo. mbuura ma ñoo jël rek ñu sotti si. xoyal xoyal ndox ak suukar sama poli kenn du leen te ñu soo maas soo maas ñu ne jënd togg seen man soo maas ñu ne ñun ñun duñ ndogoo li nga xamante daal buur rek wuru soos capputeen waaw ah, capputeen de naa la gént hmm. naa la ji ñu ngi di cappu ñeex <laughs> cappu ñeex mbaadu tebe sup ah, we have a long a long a very long way to go su ñëwee ci wàllum développe réew mi ah, su ñëwee ci jàppale ñi nga xamante ñooy dugg ci buntu mbéy mi ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi war nañoo dugg ci eh, li nga xamante ne mooy mbéy mi Euh, jàppale ñi nga xamante ne ñooy askan wi ndaw ñi war nañu delluwaat back to the land bàyyi dem back way bi bàyyi def ci seeni xel ne euh, bàyyi def def ci seeni xel ne dañoo dem kenn ku nekk dafay dem ci li nga xamante ne mooy mooy office kenn ku nekk dafay liggéey ci office ñëpp bëgg a liggéey ci office nag wax dëgg yàlla ndax kenn ku nekk bëgg nañu toog di windeelu ah, di ko def nii di ko fël-fëlaal ah, sànneeku toog nag daal di jàkkaarloo ak sa flash screen bu rëy bu toll ni euh, sa nga sóob secrétaire secrétaire dafa café bu bu sukkar bi bu bari nag sukkar bu bari dafa moom ci tuuti meew black coffee ak yooyu noonu bu déggee ñun ñu ngi xam dañuy wax waaw ba naan café <laughs> waaw dañuy wax waaw ba naan café ama yaama dafa mel ni waxtu bi xam nga am na sax bu xam ne wax ne leen mhm. wax li fi ñu Gambie waaye xam nga tam kooku dama koy wax ne ko comme nit ñi wax nañ mun mënuñoo mhm. dóor nguur gi mënuloo dem nga fekkale fi ñu nekk mënuloo mhm. tamit am ak euh, benn wax ak sax loi bi loi bi si boppam sax pour nga dem fa boo dee baadoo la ku mel ni Mariama bu kum yóbbu si loi bi dinañ ko fa wiin ndax amul koppar ba mu fa teg koppar ba fa teg maa ngi gis kon nag lu ñu mun mooy tamit wax boo waxee bu yàggee ñu ne bët bu rusut dina toj bët bu rusut dina mm-hmm. bu gambien si ko toppee si wax ji rek mm-hmm. nekk ci kon dina dem ba mujj gi maa la wax ah, dinañ ami ji ku wécc dafay yàgg rek mm-hmm. waaye dinañ ami ji njiitu réew boo xam ne wala ku ñuy njiite koo xam ne dina ànd ak ñun ak ndaw boo xamante ne dina bokk ak ñun Ah, comme ni ñoom tam ñoom ñi comme ni ñu amee xalaat bi dinañ ñenn ci ñoom dinañ ñu jiite ji. Mm-hmm. parce que àdduna moo mel noonu ah, xëy na nag loo dina jeex. fu ne li leen wax rek ba ñu ne waaw nañ yàgg a muñ. dañuy tooñ ah, dañuy wax jàmme ci nguuru jàmme dëgg la nag wax dëgg Kiara si suli na mbootam yu bari waaye tamit si nguuram am na yenn yi daf ko daan régler comme bu mburu mu ñàkkee bu mm-hmm. gaa yi toogee ne defaruñ mburu mu defar ay sirkuuram yu ngande ngande ba di ko dugal ci ci askan wi di ko jaay di ko jaay te jaayee ko lu yomba nag lu yomba ku nekk jënd boo daan ah. jënd benn mburu di bu la neexee jënd si ñaar ma xool ba xam ba xam ba xam sa mbokk yi ni ñoo def tabaski jotaan buñ jaayee xar jaayee di jëlee xar yi si àll bi jënd naan jëlee xar yi nekk kandilaayam andi xar yi nekk kandilaayam ñëw andi léegi-léegi sax mu jaayee mu yàgg mu mu rey def ndawal ñu ngi dem bu ndawal seedee ñu ngi dem mu jël def amu ko fii boo fa demoon am na fa palaasam boo xam ne moo ko bu affaire yi séeré mu ray ay nagam ñëw lool tamit boko boko xolé ba xol deug la xeyna def na fi lu bari waye tamit amna na si côté mu doon jàppale askan nit tamit loolu tamit jangal la ndax tamit ci eh, nguuram yenn yu sonna yu bari ñu ko woon yu bari temp temp na woon yu bari daf ko daan lijeenti mom ci boppam deug deug si même ci jàng free education dafa amone ya ngi dégg mu ñu doon jappalé tam ci jàng bi si ñenn ñi school boss yi nii tegoon na fi daanaka bu naa wax ne ñetta hmm. waaye ba mu fi ba xaw ma dañ ko abal waa port nañ ko abaloon <laughs> waaw waaw benn benn abal waa abal abal fu lu mel ni port autorité abal leen waaw waaw waaw waaw parce que déggoon naa ko déggoon naa ko ñu bind gars ko bind sem ma dégg ñu ne bii school boss la autorité waaw ñu ne school boss ñoo ko moom gaa dañ leen ko abal nit moom ko waxoon ne kaay bi def school nit mu ne ma xëy lii ñoo ko moom xaw ma ndax nga dëgg la am di waaye waaye sa dëgg la dëgg la because amuñu mot ñaar lañ xamoon benn bi mooy daw biir kaw benn bi daw costaru même léegi su ebe buy def nii buy def man du ma si dugga ay <laughs> wóorut wóorut wóorut àdduna neexut àdduna neexut wax dëgg fa ne yàlla munuloo boole nguur jàppalewu a dimbalewu la réew mi métti na xaat na jamono ji nee naa léegi doxatuñ ak ay yax mm. dañuy dox nii rek nit ñi hmm. pour dund nii hmm. dund moom wax dëgg fa gëwuma ko man dama nit ñi dañuy tëjëf tëjëxi nii rek moo taxit roog seen seen daf ñu àndil lu nekk soo Mariama bu ñu bëgg a eh, dafa mel ni three minutes lañ desee pour ñu tëj bi nga xamante ne mooy bi soo tëjee te na gàtt nag <laughs> da dina dina gàtt di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi doon bàyyi xel LSTV wax wan hmm. wax ne rek comme uh, ni nga ko fi waxee rek li nga xamante ne moo di state resources buñ ko jëfandikoo di ko defee campagne nañu fexee képp ku ñu teg si nguur fekk mu amee account bu dëll account bu dul nga xam ne namu dara waaye koo fekk jabaram di sol xartum bis bu toogee dina jabaram dina sol jasneer te doo si mun dara ndax moo jiite kon nañu bàyyi xel si loolu te itamit gambien si ñu yeewu ah, ndaw ñi tamit gëm seen boppa di liggéey bañ a xeeb dara delluwaat ci tool yi bay ji dellu ci géej gi napp ji dem tam gëm ne ne ah, mën nañoo yóbbu réewum Gambie ca kanam waaye su fekkee dañoo bëgg rek teg si suñu bët suñu xel xalaat jëm ñu bu ko tek ci li nga xamante ni modi di nguur gi tamit bu yagge ñun ñoy son waye nguur gi nañu dimbale ngir yalla wañu ñu dund bi mburu mi serna, euh biscuit serna am bu re mburu mi dafa ser nañ ko wax te de mburu serna biscuit serna na sax legi dafa ser lepp ser rew Gambia la ñuy jàppale dimbale ñu ngir li lay wara suli rek ñu wañu ñu mbir ñu su Gambia neex sous belli ñu def lu ñu saf su ko defé dal affaire bi na neex waye tank mu ngi seet stress bi dafa bari surtout weeru koor bi yàlla boo woor ba ngoon jot nag stress ah. jàppal nga xalaat ne tey xaaju mburu nga war a ndogoo xaaf ak soo maas yi ñu woowee nii a weeru koor ñëw amul lu ñu xaaf nga war a ndogoo mu leer na la xaaf xol du neex moo tax weeru koor ñi stress xeex rek ko su waxee Mariama sa jëbi taxana su ma ne la xëy xam nga la laa bëgg a xamal xëy yow nga defee rek la rek waaw du ñàngal waaw ñàngal kon ñu ngi jaay weer koor bi weer koor bi di ñëw moom am na yaa ngi doon bàyyeel LSTV one fépp fu ñu waaye doon dékkee bëtam rek ñu ngi laa jaajëfal nii la nag ñun dañuy dañuy safal kumbal mm-hmm. wax wax yi tamit li nga xamante ne nii moo xew si biir réewum Gambie loolu moo fi xew mm-hmm. mbir mi seer te nguur gi nguur ku ko tudd waaye foog ñu ko Adama Barrow foog ñu tudd ko Adama Barrow wàññil mbir yi waaye baax a baax gis nañ ki nga xamante ne Alhaji Cissé good morning guys the program two talks I'm late um, um, nga koo play waat baax nga seetaan ko loolu moo nekk ci li nga xamante ne online TV parce que la rawee rek ko mën a répétaat nga seetaan ko ba mu jeex so mm. um, gis nañ ne late nga but even though you are trying to be part of the program, but we are so sorry that we are def rek mooy nga pliwaat yi live bi su jeexee nga pliwaat ko baax nga seetaan ko su ko defee nga mën a xam li nga xamante moo lañ fi waxtaanee ki nga xamante mooy Um, very in insightful and interesting discussion. Thank you, sisters. Thank you to you too. tey I guess nañ ni saa yu nekk su ñuy def suñu programme You nga nekk dañu jàppale yokk ay And mhm. andi ñu dee tamit ca xam-xam ci li nga xamante ne moom nga xam ci programme bi so jërëjëf bu baax a baax yow tamit. Eh, ñu jaajëfal képp ki nga xamante ne naka yaa ngi doon bàyyi xel ak fépp foo ñu nekkoon the bàyyi xel dañ jaajëfal bu baax a baax ci. seetaan bi ak itamit comment yi nga xamante ne nag moom ngeen nekk di comment ñu yokku ay xel ba suñu demee ay ndaw lañ suñuy xel matul so suñ fi nekkee rek dañoo wax lu nekk nga xamante ne moo nekk suñuy xel waaye tamit yéen tamit eh, gis nañ ne da ngeen jéggi ne yokku ay xel yokku ñu support gis nañ ne da ngeen jàppale bu baax a baax te jërë ngeen jëf ci loolu eh, ñi nga xamante tamit ñoo ñu nekk di seetaan bugg a comment bu ñoo comment ñoom tamit eh, duñ def leen du jaajëfal leen bu baax a baax ci bi ngeen jël pour dénk ñu seen ay gët di ñu seetaan Euh, jaajëfal leen yéen ñëpp bu baax a baax wax leen rek ni euh, jàpp leen ko foofu ci LSTV woon ki nga xamante ne programme bi raw na la mun ngaa demaat baax nga pliwaat ko euh, nga seetaanaat ko benn mu jeex mu ne but you guys will not marry to <laughs> us if we do finish job finishing job okay of course why not we will get married to you um, is job not a job liggéey liggéey la nit ki lu gën a am solo daal mooy na nga na ngay xëy di gontu rek da ngay xëy di gontu da ngay xëy di gàddu baag mais ngi dem liggéey so it doesn't matter what kind job you are doing um, let it na doon fi nga xamante ne li uh, fay jëlee uh, doon na li nga xamante ne um, ànd na ak diine l'islam ànd ak li nga xamante ne métti loi um, man kayaaw ma si nga xamante ne nit ki liggéey xam naa ma tam seetul liggéey nit daal na nekk di andi li nga xamante ah, liggéey <laughs> man liggéey puus puus na nga gëm sa bopp na nga gëm sa boppa booy puus puus na nga gëm sa boppa rek mm-hmm. xam ne ne li nga def am na foo ko teg waaye waxuma nga puus puus su ba ngoon jël ko dem jëndee ko cigarette wala jëndee ko leneen. Mm. non non non nit ki na nga liggéey gëm sa bopp xam ki nga doon. teg ko ci lu ci lu waa teg ko ci yoon mu nekk ci axe nekk ci join bi rek. waaw waaye join join nga wax de join bi wala waxuma join bi rek rek joinu line bi laa wax. na leer de négatif bu négatif bu négatif. <laughs> nay leer mu nga gas ko defee jaajëfaleen bu baax a baax. waxoon nañ ko ñu wax ne eh, ñu wax ne waxoon nañ ko nay leer. nay leer baroo buggul lëndëm waaye bu yàggee de baroo dina bugg lëndëm dëkk bi nit na dëkk bi lëndëm na si boppam sax gis nañ depuis démb démb ak courant bàyyi kuy kumaj kamaj kamaj kenn xamut lu nekkoon seen problème <laughs> so mu ne you but not all ami ok I don't know I don't know about others but me I don't care I don't care borom jibi borom benn si lagaat borom jibi nga xam ne <laughs> mais mais ma tey programme bi jeex na ah, dugga nañ ci beneen ci beneen waxtu waaye nag ah, baax a baax wax nekk ne sooy nay xool leen ñi nga xamante ne ngeen ay tànn waaye tamit ñi nga xamante ñoo jiite réew mi ah, nañuy xool anam bi nga xamante ne ñoo jëfandikoo ñàkkum ci namu yi nga xamante ne ci nekk dafay taxi ko di ko dugal ci li nga xamante ne jaaru ci yoon te nit nekk di jooy li nga xamante ne mooy dund gi seer na wér koor mu ngay ñëw dund gaa ngay gën a seer soo nañ xoolaat loolu bu baax a baax te interparti comité yi déedéet bala laa bëgg a wax sa Gambie yëpp comme euh, consumer protection comme podium itam nañ jóg jàppale ñi nga xamante ñooy consommateurs yi ñu ngi fi waaye nekku di gis ñu jël benn jéego jëmale ci seeraayu bagage yi jëmale ci seeraayu pass bi jëmale ci seeraayu lépp li nga xamante ne askan waa ngi koy dund gis man jësi si di wax ak Eh, pour jàppale ñi nga xamante ne nag ñooy consommer si kon nag it's high time pour ñu génn si jàppale eh, wuyoo tur bi nga xamante ne nag moom lañ nekk di uyoo um, ñu fexe ñu def liggéey bi nga xamante ne eh, moo ànd ak tur bu nekk pour aar nga xamante ne ñooy consommer si di aar um, li nga xamante ne mooy consumer si fii ci biir réew mi so luñu def la bu jàppale leen yaa ma nekk di dox gis nga su ma nee ba bëgg rek nga dog ma anyways jox leen di daje ba suba incha allah ci um, Today's Society waaye tamit a jikanam tuuti déedéet déglu ma rek gis nga ma yang mana. nag nga yàkkamte dama bàyyi ma free waaye nag si kanam tuuti nañ del suwaat fii ci studio bi andi leen xibaar yi nga xamante mu lañ fi junju ci kayitu xibaar yi eh, ci kàllaama eh, nasaraan english eh, ak man mi ànd seeg Ami Fadera itamit ci kàllaama olof ànd ci ak Mariama Ba be balaa boobu stay leen ak elsi tey waxuloo jërëjëf Ousmane de léegi tëjal programme bi <laughs> <laughs> waxuloo jërëjëf Ousmane doo jaajëfal Ousmane mën nga tëj jaajëfaloo Ousmane du ma tëj de jaajëfaloo Ousmane jaajëfal Ousmane Ousmane Ousmane Diallo eh, chef bi la right loolu nga dee bëgg a chef bi la jaajëfal la bu baax a baax su ko defee jox leen dig daje ba ci kanam tuuti ba balaa boobu wasalaam